abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su ne ngeen di am ay xibaar. dal leen ak jàmm chaîne bii FTTV Sénégal kii di Cheikh Anne di ab cyber activiste yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci lu sabab kii président Macky Sall ginaaw kérok ci dialogue national bi bam jëlé jëlee mu mer bu futtu di funké ka néwi élection bu ñu dàq kenn néwul élection du am. doomu Sénégal a ngi waxtaan seen biir loolu dafa warul jar ñu ñuy ŋawti ŋawte ci àdduna bi loolu war na tax coow am ci réew mi date bi président moo koy déterminer parce que décret mooy fixe dat des élections yomboon na ma lool ma toog ne date bi nangam la te su boobaa ku mu neex ku mu naqari foofa ngay dem te su boobaa ku mu neex ku mu naqari foofa ngay dem. kii di Cheikh Anne ne kii président Macky sàll lu sabab meram boobee moom mooy que ne kii président Macky Sall daa bëggoon a njëkk a waxtaan ak kii président Ousmane Sonko waaye ne li ni mel mujjut a antu ne ginnaaw loole nag la kii di président Macky Sall daal di jëm benn stratégie te moom mooy mu daal di jël xaalis bu bari daal di koy jébbal ñi nga xam ne dañoo nekk biir APR ngir ñooñee daal di dem corrompre. ay délégué yu bokk ci parti bii di Pastef waaye ne ginnaaw ba kii président Macky Sall jëlee xaalis bu takk boobee daal di koy jébbal ñu bokk ci parti bii di APR ne ñooñee defuñ lenn lu dul jël xaalis bi daal di koy lekk nee na kii président Macky Sall ba muy dem ci dialogue national bi daa foogoon que ne bu demee foofee dina fa fekk ay jëmm yu bees yu wuuteeg yum tàmm di gis ci dialogue yu muy oote ci réew mii di Sénégal waaye ne ginnaaw ba kii président